barab bii daa mel ni bi ñu rëdd dakaar li tax kenn dëkku fi benn isin nekku fi garaasu su mécanicien nekku fi du tool yi ah te jege dëkk bi nag lool asalem nekk nii mel ni daal affaire bii la doon xaar sëñ Mbàkke mu ñëw fi jekk ci lool fees ko nag am na noonu boo ko ko defee woon côté bu ne dana des desug mbooy xaw ma nag <laughs> dafa am benn bis benn ujaaj ne ma waaw jumaa yonent bii ay nit a ko rëdd ma ne ko déedéet mu ne ma waaw kay maa ngi door a am réponse daane ma ku ko rëdd ma ne ko malaaka yi mu xëm waaye rëdd wii it rëdd wii sëriñ bi yàlla na la yàlla fay barkeel li des ci sa gi lépp te li des yàlla na ëpp li weesu ànd ak wér-gu-yaram lii ñëpp nga ko defal lii ñëpp nga ko defal te la bi may dugg ci bunt ba ma xool rek gis fa laay ji wax ak nit ñi hmm? bunt boo dugg ci biir it teen ci kaw gis fa laay ji wax ak nit ñi noonu lañ ko toppale la nga xam ne kon yëf yi benn joxoñ la bu am solo ci joxoñu mag ñi rawatina joxoñu maam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ndax lu ne wax na ko ci itam yi waaye wax naa la keroog sëñ Mbàkke ida zakatu dalikal mabita mm. mabit mm. mi ci Dakar mm. lii rek may nekkum payam mabit boobu lii rek ay fayam lii rek kay fayam des na leneen nag ndax ca ca jaawartu ñett yam joxoñoon lii ci ben joxoñ ba lii ab joxoñ la ca ñetti joxoñ ya ñetti joxoñ yooya lii benn joxoñ la ca biir ñetti joxoñ yooyee day waxi mag nag moo tax <laughs> du neex a tas <laughs> waaw day waxi mag <laughs> moo tax du neex a dal waaye daal gudd gàtt mooy nun nañ ci yaakaar naa ni it ñépp ci biir ñi koy gis di fi romb bég nañ ci waaye ku dugg ci biir gën ci bég ndax ruq boo dugg ñu wax la la fay nekk bureau yaa ngi fi bi jullikaayu góor ñaa ngi fi jullikaayu jigéen ñi duggukaayu handicapé yi ah studio yi lépp a ngi ci biir caméra surveillance yi ah signal yi maanaam daal li jamono laaj def nañ ko fii bëgguma guddal waaye daal maa ngi wane sama mbégte di ko wane sama mbégtel sama àndandoo bii di Serigne Mbacke di sunu xarit bii di ahmad ànd nañ fi tukki ñaari yoon hmm. ba ña nga jëmoon waaw ànd nañ fa tukki bu am solo waaw yàlla na yàlla gën koo sàmm gën noo sàmm defal ñu tawfiix yàlla nañ di ci julli di julli di julli di julli ba ñu naan diw moom la ñuy puus nee ci puus puus bee rafet na lool témoignage yi tamit wax dëgg yàlla rafet na trop te am na wax ju jitu jiitu yoo mm-hmm. ni ci moom mii la tukkee ba ñu di ko jot muy waxtaan wu rafet di tamit seede bu rafet ak témoignage bu rafet bu wone ni lii ñu fi def bokk na ci ñiñ ko fi defal ndaxte sëriñ bi day faral di wax ni lépp loo gis muy lu baax boo ko rombee boo ko gisee mu neex la yaa ngi ci biir jëf ji kenn ëpp léetu la ci safaan ba it noonu lay mel waaye moom bi mu fi laataa ñëw rafetlu na ko te booba kat gis rekk ñu filmer dugal ci vidéo yi mu xool mu wax ca wax joo xam ne daanaka mënula gën a rafet wax ji mu fi wax léegi waaye ni ma ko waxee woon léegi rek ñun ñun ñun ñi ci diine diine rek la am te it diine lu jara am la kon ñun amuñu lu moom damay faral di wax ni jullit yi nañu xoolaat bu baax a baax a baax seen bopp ndax ñun duñu ay noon ay complice sax lañu war a doon ñun jëlale naa li yàlla wax ni dañoo war a tënku ci génn buum waaye dañoo war a doon saxi complice ndaxte li nga xam ni moo ñu tënk muy diine di diine lislaam li ñu am amuñu lu ko gën a rëy mooy diine moo tax sëriñ bi ni ma ko waxee woon sànq rek mosula am ñaari yitte mosula am ñetti yitte benn yitte rek la sëñ bi masa am mooy diine <laughs> te bind na ko wax na ko nee na diine rek la am nee na leneen lu dul diine amu ci bëgg amu ci yàq ni ko ni ko doomam ju baax ja waxe woon ni ko lu dul diine lislaam nee na lu dul lu dul diine lislaam amu ci defar amu ci yàq waaw waaw <laughs> ah, ci defar amu ci yàq kon bu fekkee ni ñun dañuy ay jullit ah, sans borom boole ñu loolu muy suñu koom nekk nekk nekk suñu patrimoine eh, eh, jëlale naa sax xaritoo waaye dañoo war a dooni complexe ndaxte leneen lu dul ñun rek noonu la ci ñun <laughs> leneen ñun noonu la ci ñun ñii ñoonu lislaam xàmmeewuñu tiijaan baak xaadir baak laayen baak zalzaliyo baak xàmmeewuñu ko dañuy wax jullit la rek noonu noon suñu noon lañu kon koñ comme ñun ku ñu seen doo ñu teg beneen étiquette lu dul étiquette jullit ñun kat ñoo war a doon complice <laughs> ñu lay suivre mooy yow waxoo ci lenn ci diine rek ngay wax te diine jooju moom sëriñ bi moom la mu waxoon daanaka ñépp dégg nañ ko lil Moustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatuhu xara indi inni ahmadu kooku kon kuy wax ci diine moom ngay dimbali rek <laughs> te ñun sëñ bi ku ko dimbali jàpp nañ ñun ngay dimbali waaw dafa am ñoo xam ne nag boo waxee ci diine loo xam ne lii lu jub la am nga ñépp am na ñoo xam ne lu ñu def diine bu doon xosi sax na jàpp ni moom lañu ñu xosi te am nga ci wàll moo tax nag warute leen a noppi waaw loo leen gis loo xam ne diine dàq na ko bëgg ko da ngeen taxaw xar ci seen tànk tubéy te bu leen xool kenn ndaxte loo gis mu wàcc ci àddina bi ak lu mu bari bari bari bari bari bari doole ci nett lii rek lay mujj buuri àddina bi bii Nemrooto leen ëppoon doole fuuf Ponce Pilate moo leen ëppoon doole fuuf doole yi doole yi far ci na yi seen doole ñi gisuñu ko

Macky Sall mii mooy borom réew mi ñu fal ko lu mu am am am doole sañu tëj kenn te jugé wuñ ko te sëñ bi kenn mësu ko jugé dañu def rek simulacre de jugement tëj ko kon bon looleen gis mu ne ci diine ji te nekk lu xajam rek nañ ko dénoncé parce que ñun moom rek la am